di jëriñ sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant bu baax Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di sàkk kenn ku nekk ci ñoom rek mu ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi lool te wér ah ñu ndigal loo xam ne suñu waajur bu ñu ko wax muy Baye Omar ah ci jiital cant gi nag mooy magam ñu suñu waajur Baye Xaanu Seen yéen ñu ngi sant bu baax di ko ñaanal sama borom doole ak wér ndax nee na bu fekkoon ne tawatul lii moo koy teewee waaye nag yàlla moo sutante ñu dolliwaat ko ñaan bu baax sama borom doole ko wéral bu baax sax nga xam ne moo waral jotaay bi defal këram def fi jumaa ak daara indi fi waa ju baax ñun seen daara kër gi nii ñu taxawu xale yi taxawu ñu rafet. yal na yàlla dolli ko barke defal ko barke ba alxuraan yi ñu yor yëpp ah Baye ma nee na mi lay sant cant boo xam ne am na tàmbali waaye amul ab yoon bi ndax boo jëlee xale yi jox ko nit mu def ci moom mbaa si ñun rek mënatoo koo fay loolu la mu sëriñ bi wax rek nag nga jàngal xale yi ba macha allah dégg asan li mu tari xam ne njàng mi mokk na ci te benn ci ab yar loolu ni mu ko defee naan la ko xale yëpp defee waaye yal na yàlla na fan ne cat na fan ñu ko defal ko mboolem jullit yow sa yéene yàgg naa rafet yàgg naa baax ah sunu borom nag mooy dogal lu ko neex waaye nun ñi sax suñuy gone bu nu sañoon fii nañ leen indi woon waaye lenn lu ci nekk rek ci ndogalu sunu borom rek la sunu borom lañ seet lu ko neex waaye yow moom ci aw yoon rek nga tege waaw ci aw yoon rek nga tege sunu jàngale macha allah. ko dégg dana wax dégg tamit bi xam ne maxaarij bi lépp day génn ca loolu rek mooy li am solo fu ne mënees na mën nañ faa yóbbu xale ñu jàng alquran te loolu rek lañu bëgg yàlla yàlla àggaleel ñu nag waaye ma ne na cant gi am na tàmbali waaye amul ab yoon waaye yàlla na sama borom kattanal la dëgëral la li nga am yéene ci xale yëpp sama borom yàlla na ko àggale ba ñoom ñëpp moo kon fi alquran bind fi ay kàmm yu bari ba daal di tasaaroo ci barke Sëñ Tuubaa li mu bëgg nag mooy képp koo xam ne teew na fi rek mu làmb ci aw ñaqam rek lu mu toll rek mu def ko addiyee alquran ñoo ngi ñaan képp koo xam ne tàbbal nga ko ci mbir loo tàmbalee yal na ko alquran àggale ci barkeb Sëñ Tuubaa ndax nit mu ne koo fay ki bàyyi ay yitteem bàyyi léppam ah téyel la sa doom mënoo koo fay li nga ko mën a fay mooy ah di ko jàppale di ko bàyyi xel yan lañu sëriñ bi doon leen dimbali ci barke alxuraan waaw ñu ngi ñaan képp koo xam ne dégg nga kaddu bi rek loo am ñaar fukk wala juróom wala dërëm ñu ko indi fii def ko addiya alxuraan ñu ñaan sama borom dali barke paan ak ah, wax dëgg yàlla li nu war ñun ñëpp mooy jàppale ko def fa ab hôpital teg ci xam ne boo feebaree bala ngay jël oto fu ne nga jëm fa fii rek ngay dugg li nga bëgg nga daal di dem bi sama góor gi wane na ko bi mu tawatee fi lañ ko indiqué allah mu ñëwee bi ñu lëkkaloog moom ba tey alhamdulilah tan rek lañ ci gis. nit nag bu la dee defal loolu da nga ko war a ñaanal bu baax ñu lay ñaanal sama borom yokk la gën laa dëgëral li koo koo faj yàlla ko sama borom defal ak wér te defal ko gudd fan ci barkal sëñ Tuubaa sëñ Babacar yàlla yàlla doon say xéwal doon la jàmm ñu ngi dégg bu baax jërëjëf bee jërëjëf jërëjëf yi sax xam naa atuma loolu waaye. waaw lu jub rek ñu xam ne yàlla lu ci dëgg ñu xam ne doomu aadama mat dem la jërëjëf macha allah. yàlla rek lay doon ndax teewal nañ fi daaw yàlla dogal nu fekkewaat ren du sunu jàmbaar ni malul suñu borom la ndax am na ñu fi nekkaleen daaw ca ren fekkewuñ ko soññee gi nag day jëm ci borom daara ji nga xam ne mooy xamle ak ñiy xamlul kenn ku ne nga def ci pastéef ndax miir bu moom bu fekkee ki nga xam ni moo sañ dëkk bii wax jooju bis bu ne daanaka booy na noppi nit ñi wutuma fu may sàmmee wutuma fu ma ay tool fu may jaamoo yàlla moom moom moom laa doon moo tax mu sañ ci dëkk bii ah ba boo masaa ñëw di ko ñaan loo ci xeeti xeeti cat moom sëñ Tuubaa dala daa wax ni la man mii catama jàpp ndax bu ma cat jàppuloon sama dëkk boobee di Touba falaay toog di jàngale alxuraan kon bëgg gëm bëggal loole ki yàlla defal tawféex yi ah nga ci yëngutu kon am nga sas bu rijey boo ko xamee boo ko xamul yaa ngi dox ci yaa ngi dox ci liggéeyub sëñ Touba waaw kon foofu la soññee bi jëm ak ak saar bi xale bi doon jàng sànq nga wax ni ajjuma ajjuma lay tombe bis buy tukki ah ni ko sëñ bi waxee siikul jawaar yi bis boobee jullik fajar mën nañ ni waxtu fajar lay tombeel fajar la nit ñiy dekki di dox di dox di dox ba tisbaar moo doon taxawaay booba mais jant booba nga doon wax itam mitin wa ak tàngaay wa tisbaar lay tombeel tàkkusaan jot sama borom indi ma balance yi ma seet jëfi gaañu waaw timis jot mu seddale leetar yi gee jot nu jéggi siraat bu ko defee nag foofee la kenn ku ni door am kër sëñ Touba boo ko mësaa waxi kër fii de ci àdduna doolaa man àggagunu fu ñuy amee kër nit balaa am kër daa jéggi siraat ba pare nooru daare ni itam ñu koy ñu koy firee ñu koy firee àddina ak àllaaxira waaye borom xam-xam yi nee mooy ñaari kër yi am foofee muy àjjana ak sawar loolu ci sëñ bi jublu ba tax na ah, barab yu mel nii yonent bi daa wax saaba yi bu leen di romb mukk dëri àjjana yi ca góobu leen ca meññet ma yóbbaale ndax ñoom dañ laa jaaxle ndax comme nangu ci àddina demagun fële di lu bokk ci àjjana mu misaal leen xamali jataay yii mooy dëri àjjana bu leen koy romb mukk ca góobu leen ca meññeet ma na ni góobe ca meññeet ma nag mooy ñëw toog di teewlu waaye fi mu ne dégg nga coow lu suñu ginnaaw fi mu ne am nañu tey bu ngoonoon boo demee ni leen fa ngeen demal loo fa jëlee duñ fa jëlee dara ndax fii tey biñ toogee ba nëgëni ku am dara ci xel war nga fee yokku ci xam-xam ndax li xale yi doon wax ñu koy dégg nga koy leeral am loo ci leeral ci kàddu donte tey nit jàppal na ci benn kàddu kàddu boobee booy dem nga yóbbaale ko mën na ni góob nga ci mejjet bi noonee la ñuy góobee ci meññet bi waaw waaw waaye fi mu tey boo àggan leen conférence ba di loo fa jëlee du la mën a tontu li jëlee naa fa dara su sëñ Tuubaa baax mi day wax ni sama xasida yii fu ñu koy jànge képp ku koy ramje du ñàkk bis mos nga joxale ci sawara ca xasida yooyee nag alxuraan ñii mooy ndey moo ko jur kon fépp fu ñuy jàngee alxuraan boo mënta teewlu jërul nga fay dem ndax bàkkaar yi dafay jël ndax suba ba tey mu ne fem nañ ko nit ñi waaye taxul nu dégg nu dégg nu dégg dégg moo la déglu ca déglu gi mooy mooy mooy mooy loolu la yonent boo xam waaw bu leen rombati mukk dëri àjjana yi ca góobu leen ca nu laaj ko nun koy xàmmee mu ni ko mooy fi nuy daje di jàng alxuraan wula fi nuy dajaloo di sikkar fi mu ne kum neex ak kum naqari ku ko xamul malaaka yàlla ci suñu biir di déglu waaw ndax am na ci ñoo ko xam ni loolu tax sama borom bind leen fu ñu jàngee alxuraan ñu teew fa yor seen yor seeni i yor seen i carnet di bind waaw seet ñi doon teewlu ak ñi doon déglu kon lii lu am solo la ba tax na ah déglu gi nag man dama gën a daanaka wax bi xam naa soññee moom mënta ñàkk waaye ngeen xam daal li ngeen yor ni ko waxee woon daaw yéen ñi nga xam ni yéen la yàlla defal tawféex yi ngeen yor daara yi ku ko xam ak ku ko xamul iblis ndax iblis moom sëñ bi tëna ko ba pare waaye noonu na nag noonu na xamalal na ko ni ko ñi nga xam ni ñoo ne ci li nga bëgg a ah, du ma leen may jàmm de fu ma toll maa ngi seen tànk ca moom ca moom nin ko waxee nag kàttanam bare na lool yàlla mi nga xam ne nag moo yor ndimbal di dimbalee ah yàlla na leen dimbali a ah, ak koo xam itam jàpp nga ci daara ji daara moom koñ bu ne ku ko xam ku ko xamul moo néegub yàlla bii ñoo yam ku ko xamul ku ko xam am nga xéewal goo nga xam ni nii ni nun nag ñi dëkk Touba nag am na tawféex waaye ñu ci bari tawféex ji am doon koo xàmmewul waaw ndax sa sa ci jàkka nu woote a ah, nga dégg woote ba ba noppi gund guutur bañ a wuy ji ca fi mu man dama seetlu sama gis nag bariwut tax fi damay seetlu léeg-léeg ci barab boo nga xam ni eh, eh, boo laajee lu xew fii ak mi mbooloo dan na fii de dañ fii séddale xaalis wala dañ fi séddale ceeb ca ku xaman nodd dégguk nodd mbaa mbaa nu leerale li ci nodd ah wuy nodd moo gën fa ngay amee million wala milliard ku xam dara nag ku dem ba leerale li ci nodd li ci yàlla wax nga déggug noddul bañ a wuy ndax barab bii kat bi muy door ubbi muy jàkka ji seen xaadim jaxate mu baax ma dama woo ba ma ñëw mun ma da nga wër buntu kër yi wër foofee yëpp ni leen kat foofee lay jeex na fa kenn amatu faw lay bu waxtu jotatee ne ñëpp ñu wuy ji wuy ji woote bi yàlla bi waaye nag yàlla na yàlla defal dégg ak topp ñoom la leen war daal def nan ko ah nu sant itam sëñ nga xam ni ci moom la yëf yi jaare sëñ Balla mi nga xam ni moo fi moo fi defal daara ji defar fii ah sama borom yàlla yokk wërsëgam yokk wéram ah sàmm ko sàmm njabootam ah may ko lu ko noppal balaa sonn ah yow mi tam xam ne yaa yor daara ji ah sama borom yàlla kartanal la ca nga xam ni liggéeyu sëñ Touba moom ku ci ne boo ko xamee boo ko xamul du doon lu yomb waaw ndax lu ne da ko dégg lu ne da nga ko dégg lu baax moom képp ku ci ne. danga nga koy xool ci sëñ Touba ak sëñ Touba ak sëñ Touba ak yonent bi rek liñ daj laata noo am liñ am ndax njariñ moom njariñ moom dafa nekk ca dafa nekk ci ginnaaw coono coono moom force dangay jéggi coono yi door a door a jot ci njariñ yi waaw xam naa nag ñu jéggal nu ci wax ndax moom oh, oh, ku amul xam-xam la bëgg a wax ci borom bi borom xam-xam yaa ngi nii toog wër ma day xaw day xaw a doy waar lool waaye yàlla daal defal nu dégg ak topp. jotaay yu mel ni daal nañ koy bàyyi bàyyi xel ca xam ni moom la yonent bi tuddee dëri àjjana yi waaw dër ku ko xamul moo di ab tool pour ñu déggul kii dër moo di ab tool tooli àjjana nag ku koy romb nun la wittal ca wa na nga cay amee nag wuutawul toog rek di déglu di teewul ah, loolu yomb na waaye da nga suba ba tey coow moom mari yàlla yàlla defal ci